xam nga c'est comme en football les records sont faits pour être battus là-bas sama idole la woon je voulais le dépasser aussi je voulais le dépasser mais pas faire ce qu'il fait c'est son identité mhm. il s'appelle Laba Sossé moi c'est Alias Diallo je dois avoir mon identité comme Laba Sossé je ne peux pas copier Laba Sossé c'est pas possible on m'a renvoyé du lycée à cause de Laba Sossé ñu tase Miami en 78 ma ne ko grand yow yaa tax ñu dàq ma lycée mu dóor table bi oh. mu ne ma c'est pas possible booy wax nga ma li ma naqadi. mu naqadi ko. trop mu ne ma booy mais dina la wax lenn après moi la ba sose ça sera trois man maa la lycée mm. après moi ça ko nag grand pas pour ma doon na la de c'est pour te nii laa ko tontu. parce que man dama musa gëm sam bopp. El Capo le chef. moo tax euh, naka la ñëwee loolu si. Euh, bon El Capo El xam nga. Euh, ma un artiste c'est un créateur. Mm. moi je suis pas un suiveur. je suis uh-huh. créateur. musique bu ma ñëwee dama andi sama identité mooy Ayonene. Ayonene bi adduna tukki. Mm-hmm. boo ne Ayonene nañ ne Alias Diallo. j'avais une vision mooy intéresser la jeunesse à ce que je fais bon El Capo mën naa wax le roi man man naa wax je suis le roi de la salsa mais coow day bare coow li day bare comme gars ñu nangu quoi non par force ñu nangu mm-hmm. parce que Ronaldo tey mm-hmm. bu ne ça fait ans je suis le meilleur buteur Ligue des Champions ku koy bañ bu neexul Messi nag Messi nekk meilleur buteur ah yow nekko ko meilleur buteur meilleur buteur nee na ne man meilleur la doo ko mën a bañ bon Capo roi bu ma ne roi la roi Youssou Ndour roi di mbalax la Baaba Maal roi di yeela la Eumeu Sène roi des arènes non je ne copie pas j'ai créé ce qui m'appartient El Capo le chef parce que je suis un créateur créateur si création boobu lañu ñëw. voilà bu ñu jógee si musique bi li nga créé li nga démarqué wu ñëw in sa sa style euh, style dafa toog ba si si li ngay solo. waaw c'est-à-dire lépp dem. pourquoi ces couleurs pour quoi euh, yu euh, melax yi voilà pourquoi voilà yooyu est-ce que mën nga si ñëw. waaw xam nga am na li ma bëggul wax je ne je le dis pas pour faire choquer les autres. parce que c'est un sujet très sensible. La tijaniya xam nga dañ ko jegaane mais muridiya jegaane wuñu ko mais aujourd'hui muridi muridisme est plus populaire parce que Cheikh Ahmadou Bamba moo ko moom moo ko créel boppam tijaniya Cheikh Ahmadou Tijane moo ko moom je ne fais pas pour blesser wala lii ak lii ak lii ak lii waxtaan la rek voilà mais tey aujourd'hui le le mouridisme est plus populaire au Sénégal mais ça c'est la création de Cheikh Amadou Bamba dëgg loolu dëgg aujourd'hui la salsa li may def est plus populaire aujourd'hui que la salsa classique au Sénégal parce que maa ko créé mm-hmm. jéggaane wu ma mm-hmm. ayoy ne na du jéggaane doomu yaay du jegaane bu leen taal réew mi du jegaane sama création la ma andi lépp mu nekk sama sama sama bopp mouridisme am na colinam dëgg loolu dëgg mouridisme am na colinam boo tasaan murid si tali bi nga xam ne ki murid la tey boo képp ku sol lu luy briller leneen dañu ne wax ne Alias Diallo mu ngi nii ma ma a sol chapeau yi comme yi parce que chape chapeau c' est pas c' est pas uniquement cubain chapeau yi kobo yi ñoo koy sol boo xoolee orchestre cubain yi bëri duñ sol chapeau man di sama colin bopp man di sama sama sama sama sama sama sama sama bopp ndeel man mhm. sama lépp man di chante seul j'ai pas un second je prends pas de pause tout est créé par alias lépp li may def maa ko moom. comment se porte la salsa au la salsa aujourd'hui est au niveau de Alias Diallo. C'est comme si tu me dis comment se porte le mbalax. Le mbalax est aujourd'hui au niveau de Youssou Ndour. La salsa est aujourd'hui au niveau de Alias. Parce qu'aujourd'hui, <laughs> Alias, c'est le musicien, nous, question le musicien le plus demandé du Sénégal. Pas de la salsa, le plus demandé du Sénégal. Le seul qui a joué dans 13 capitales régionales du Sénégal en a 14. te du ma maa yóbbu sama bopp j'ai joué dans plus de cinquante cinquante villes et villages dans ce dans ce pays li may joué kenn joué ko fii j'ai pas une télé derrière moi on me met pas en boucle j'ai pas une radio ni un journal derrière moi kon aujourd'hui la salsa est à l'image de Alias okay. quelqu'un qui s'est autoproduit cinq fois qui a fait quatorze vidéoclips doo dégg mukk ñu ne la mbalaxmaan bi dañ ko woo na pour mu teg di soirée doo dégg mbalaxmaan mbalaxmaan bi dañ ko woo ngunumaan mbalaxmaan bi dañ ko woo feneen salsa ngay dégg c'est alias tous les mbalaxmaan s'arrêtent à Dakar mm-hmm. doo gis benn mbalaxmaan buy génn dix fois dans dans la saison amul je suis le seul salsero musicien musicien bu ñu ñëwee eh, si musique bi sa salsa à Dakar eh, comment se yaa ngi joué ba tey quatre cinq fois dans la semaine trois fois eh, naka mën nga ñëwaat si je joue quatre fois dans la semaine. quatre fois. loolu bokkul ak ni may génne. bokkul génne. les samedis sans quand je sors pas maa ngi joué sama boite parce que je signe des contrat mm-hmm. boîte bu ma nekk ma cinquième année. maa ngay fa y a pas au Sénégal qui te dira boîte bu may tëggee fii defe naa fi cinq ans wax wax tamit dëgg dëggin la laaj def naa lii te dëgg la loolu ak bakku bokkul nit ñi dañu yaakaar ne alias day bakku non du question bakku damay wax li ma def te kenn di wax lu ma wax du dëgg cinq ans laa def boîte bu ma nekk je signe des contrat de deux ans deux ans par deux ans j'ai une base Grand Yoff mooy sama baas frontière fu ma nekk mooy sama base ak pataka foofu lay tëgg j'ai le droit de sortir en cas de contrat extérieur parce que je signe des contrats je viens pas boo xoolee sal eh, salsero yi fii souvent da ngay dégg si boit bi tey mercredi bale wala samedi fa après doo ko déggati parce que non il signe pas de contrat moi je signe un contrat man kenn du ma si boîte signé ma ak yow contrat je je signe un contrat à durée déterminée et renouvelable mais man dama lay wax ne ba ma dugg du ma